waaye ji. wa mbokk man de damaa jombi. ñu ngi lay dégg Baye. allo. oui. Eh, ji ji yaa may dégg. Fall ñu ngi lay dégg Fall Fall Fall ñu ngi lay dégg. waaye ziara tey Fall. jaajëf waaw mais euh, maa ngi maa ngi taaxarlu waxtaan bi quand même commencement ba léegi nag. Uh-huh. Eh, maa ngi liggéey bi maa ngi lay dégg quoi am na solo trop xam mais parrainage sama gars yi dañuy dugg mais xam nga duñu war duñu ñu war a wax quoi duñu wax wax ci yëpp quoi dañuy jékki di dagg wax ci di ko raay quoi wax jaruto laay defal. yàlla fi ko wax ji jaruto raay quoi ñun ñëpp nag amul Jean amul Paul amul Fall amul ma Demba ñun ñëpp a ci yem Fall. amu nga dëkk Touba amu nga dëkk Tivaouane amu nga dëkk boo booy wax boo ñeen wax bul wax quoi bul ñëw si laaj activité Sénégal activité sénégalais yi quoi ji bul dugal ñëpp quoi Fall <laughs> parce que li jot dafa jot quoi sànq commencement bi teg nga am na waa ji dëkk Touba xam naa turam xam nga turam. xam nga la. benn paal xam nga xam xam naa ko. na am am na vocal bu mu dugal quoi. Uh-huh. même man sax intervenir naa aussi parce que am naa whatsapp wax naa ak li mu koy wax quoi. dëgg la eh, dama ne sénégalais ñu bàyyi duñu dëkk bi ñu koy colon coloniser waat moom idi boobu mu àndal man d' ma ci paal. Uh-huh. y' a les hommes intègres qui sont blanc bi lépp lu am daf ko sàcc tubaab ci ci ci tubaab bi lépp laa ni lépp loo gis àdduna bi tubaab nit ku ñun defal tubaab bi sàcc ko nit ku dañu war am ay homme intègre mais on a des gens intelligents xam nga bo amee juroom ñaar fukki junne Sonko wala juroom ñaar fukki junne Jiji wala keneen ak keneen léegi të léegi dëkk bi dem laa ni gaan mais buñu waat tubaab bi ñaan dañuy coloniser jox ci dëkk non non non non non man de buñ ma non non non je suis pas d'accord. buñ ma y a eu Malcolm X. buñ ma y a eu y a eu euh, Martin Luther King y a eu Kwame Nkrumah y a eu Marcus Garvey ñooñu ay borom kër ay nit ñu woon Senghor ab doomu bu toj la waaye leen jël exemple Senghor Senghor ab doomu xaj la baaxul woon tey du baax dem du baax suba Senghor bu waxee l'émission est nègre la raison mooy Senghor ab doomu la tubaab bi loolu loolu tubaab bi moo ko fi tegoon

mais balaa wax si wax góor jigéen gis nga mbër yi mbër yi mbër yi pat <laughs> nga mbër yi ñu <laughs> lañu yenn musiciens yi ñu <laughs> lañ ñoom ñoo ñuy xeex ñun ñooy ñoo tax suñu xeex bi du toll fu mu toll instant bi ñooy ñoo de tax xeex bi parce que ay doomu xaram lañ mbër yëpp nag amul genre pôle ñoom ñëpp ñoom ñëpp laax la ñoom ñëpp laax la waykat yi ñoom ñëpp ci a kaw seen papa Youssou Ndour ba ci suuf seen pap Youssou ba ci suuf ay doom xaam lañu musoo gis benn woykat bu ci woy suuf suukar bi dafa seer dund gi dafa sew mais non bu leen Macky Sall wala ñu yagar yagar ibbi seen <laughs> di leen pale pale wa ay doom xaam lañu quoi yi <laughs> te ñoom nit ñoo tax ñoom ñu siw Macky Sall taxul benn ministre taxul nit ñoo jël jël seen cinq cent di ko paas di dem di bëgg ji ay doom raam du ñu ges askan bi xoolal ñoom ci lañ bokk ci promotion quotidienne bi mbër yi jël ay quatre combats cinq combats sa doomu golo de fucking parce que nee ma kenn nu mu tudd sax promoteur boobu ah kenn xamul mu ndur fan la jëlee xaaj bi fan la jëlee xaaj bi ma jox gars yi chaque combat dafa am xaw ma xaaj boobu Gaston Mbengue fu mu ko la jëlee man yàgg naa ko wax quoi xam nga yàgg naa ne wax ça fait cinq ans mais lii du affaire ay carte lii du affaire ay démocratie xam nga lii xam nga lan la xeex wàcc xeex raak ñu dee dee ñu dund dund faal la vie continue loolu rek la di ngeen fi ñu jëm nii ak góor jigéen ani cheikh muntaxa ani cheikh ababacar si ani ñi layen bi ani ñeseen yi yéen seen maam yi seen papa borom tuba mam alaaji malik mam baay mais ñoom góor jigéen la ñoom xeex quoi yéen ñu lu ñuy voté loi contre góor jigéen yéen ku nekk toog sa kër ku nekk toog sa kër tëj sa làmmiñ yow nga ne yow yaay chef religieux yow nga ne yaay chef religieux Touba yow nga ne yaay chef religieux Tivaouane yéen ban façon diine yi nekk yéen diine yàlla ngeen di wax wala diine seen maam wala diine seytaane wala diine franc-maçon yi ban diine ngeen représenté quoi.

sa franc-maçon doo mën a am Macky Sall boobu naan laxalaas ginnaaw sëñ Touba sëñ ku bëggul Macky Sall sëñ Touba bëggul la sëñ Touba bëggul góor jigéen la góor jigéen la la faal mais lan la quoi yéen les la ngir yàlla yéen ban diine ngeen jaamu inda allahi inda diin al dasit loolay diine bi sëñ tubaa loolu la fi nekkoon sëñ tubaa yàlla yonte bi yéen da ngeen gis sëñ di jaamu benn nit si suuf lépp lu mu wax jaamu si sëñ tubaa doon ko nit xam waajuram papam yaayam fonk papam fonk ko yaayam fonk ko papam fonk ko yaayam yéen nag dof yi xar yi ngeen nit yi ku leen woowu ci yàlla yonti ba ko fal ñii représenté ñu sëñ Tuubaa ñii représenté ñu El Hadj Malick barki maam Seex Fall seen bopp lañ ci tool ku yeewu na nga yeewu nag fal te ngeen jug ngeen topp seen waajur topp leen seen waajur topp leen seen leen ñii bu leen jox ñàggal ñii loolu jox leen ko seen yaay seen papa ngir yàlla yonti te bu loolu weesoo

du ay élection ngeen jëlee li ngeen woon ba barki maam Cheikh Fall fala yam nag Fall képp ku ànd ak góor jigéen góor jigéen voté ku nangu si wax ci lii ab góor jigéen la ah noo munti tur na noo munti sant Fall nga sant Diop Ndiaye Si sen Mbacke Fall ab góor jigéen nga fala yam nag Fall ilal liqa salaam salaam wasibora ilal liqa wasibora la liqaa wa simora faal faal el dictateur du gàttal waay yow laay xaar de damay tëj léegal booy wala fi jaatul naan ma yokkaatal 30 minutes xanaa lii du jàmm yokk ma tus damay tëj